bëgg nopp bu dëgër lool ci diirub ñetti fan doo tàqalikook mukk ba abadan o oh, Layla mu ngay jooy lii yépp yaa ko teg sa bopp analyse décortiquage série Babel épisode trent li ma gën a neex ci série bi mooy épisode bu jeex bi di ñëw gën koo raw fuuf mbokk yi gis ngeen épisode 29 bi Sénégal àddina yépp ko doon waxtaanee ndax séquence yi nga xam ne ñoo am solo nekk ca biir épisode trente bi ñëw nag daw yaram séquence par séquence noonu lépp daw yaram nuyu naa leen gërëm naa leen di leen wax dalati leen ak jàmm seen émission Décortique Cas fii si Teen Top Cas 221 ki leen koy defal di Dj tey épisode 30 bi la ñuy analyser décortiquer ko benn par benn ndax ñu bëri ñu ngi seetaan série bi mais comprendre luñu ko wala am na séquence yoo xamante ne du xam naka lañ koy décortiquer bu doon ñoom la tey nag dañuy wax ci digganteeg fa ak borom këram bi wala sax ak borom këram ba <laughs> ndax ñu bëri ñu ngi naan dafay baal am du ko baal question bi may posé nag. moom mooy yéen ñi may seet laa koy posé ndax bu doon yow la danga koy baal am doo ko baal tontu ma ci commentaire yi non sama avis nag laay joxe euh, tey jii bu fekkoon may faa dama koy baal ndax sunu boroom buur bu màgg bi nga xamante ne boo ko tooñee sax daf lay jéggal kon ñun yi nga xamante ne ay ay nit kase lañ ñu war nañ di jéggale ndax ku dul jéggal kenn du la jéggal te boo bëggee ñi lay jéllal da ngay jéggale ndax surtout nag dañ ko seetlu si jigéen ñi man lu ma seet lu ma seet la jigéen ñu bëri pour nga tooñ leen ñi baal la c'est góor moo gën a gaaw a baal góor moo gën a rafet xol que jigéen yenn ci jigéen ñi nag gaaw nañ baale mais du ñëpp tey nag ñu bëri ñu ngi naan na ko faa mayaat deuxième sens mais tamit am na góor yoo xamante ni boo leen doon may dix wala ba mille cent teewut ni ñu mel la ñuy mel mais tamit lii jàngat la ci que nit ki lépp looy def na ko sóoraale ndax léeg-léeg da dégg ñu naan ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la parfois nag waxu olof jaay day doon loo xamante ne foog nga gudd xol wala foog nga sa xel yaatu pour nga mën koo comprendre que lii nii jàngat la ndax ñu bëri ñu ngi seetaan série bi di ci jël ay séquences yoo xamante ne tey ñoom dund nañ lu mel noonu wala un jour dinañ dund lu mel noonu xamuñu réellement naka lañ koy teniree ndax yenn situation yi foog nga am ku la conseiller wala foog nga gis yenn image yi nga xamante ne carrément lii diw jaaroon na si tey jii nga ñëw jaaraat si bu fekkee nag si Leyla la ñuy wax gis ngeen ko nekk na triste commencé na di rëccu ndax li ñu naan nit ki lépp loo xamante ne da nga koy rëccu tey war ngaa xalaat bu baax a baax li ngay def wax balu fetal la bu xësee ba génn rek génn na lii nag jàngal la ci képp koo xamante ne mu ngi ci àddina que nit ki lu baax moo la war lu bon saay boo ko defee am lu bon lu bëri doomu aadama mu ngi koy def di regretter ba mu koy def xalaatul ne lu mel ni dina ko ci fekk kon yow mi nga xam ne yaay seetaan série bi lépp lu bon loo xamante ni def na ko ñu fekk ci lu bon éviter di def lu baax lépp loo warloog sa digganteeg sa morom lu rafet doo ko def ndax saay boo defee lu rafet tôt ou tard lu rafet loolu suñu boroom bu la ko fayut sa moroom bu doomu aadama moo la koy fay waaye saay boo defee lu baax saay boo defee lu bon lu bon loolu suñu borom bu la ko fayut sa morom doomu aadama mooy jël lu bon loolu faye la ko mbokk naka ngeen gisee épisode trente bi ban séquence moo la ci gën a neex bindal ma ko ci commentaire yi ñu daal di koy gën a décortiquer lii nag mooy partie 1 bi dinaa dugal partie 2 bi ci kanam wéy leen di abonné fii ci Tim Top Cas 221 seen émission décorticale série Babel saison 1 jàngeen jëf ba beneen yoon